يعني شيخ من بين جاي ay ca ba jib na de ku jëkk politique gi dikk ci la tribune yéen kay groupe des médias ni saytu gën a bëggoon ci kayitu mbind bi da mujjuta antu ndax dañoo mujjee gedd Abdou Karim Fall ci Vox Populi nee ñi de dañoo yeb ndax fichier électoral bi lañ leen laaj ñoom ñuy tegal ay maquette mel ni ku ñu jàppee ay naataxuuna looloo tax réew mi quotidien ni audit ba ku jëkk politique gi bëggoon ci fichier électoral bi de dafa mujjee avorté ku jëkk ñoo mujjee gedd ndax dañoo jàpp ni kat lii dafa teeyum xel waa daaf ni déet ngal la waay bu nu gaawtu ndax ñii kat dafa mel ni kon la leen tax a jóg du leen na lu dul nguur geex askan wi waaye fii nag dara lëndëngu fi Ibrahima Diallo ci Vox Populi mu ngay xam kon nag ñii de li ñu bëgg mooy rek a jot si numéro CEDEAO bu électeur bi te loolee nekkul ci fichier électoral bi rubrique fichier carte d'identité bi la nekk waa kon lu fi jar coow neexul ba neex nag coowal cin li ci taal bi boo seetee ba sa biir du si li waaye sa kateg cin bi la ku jëk politique yi dee jaxase ñoo askan wi moo leen tax a jóg waaye suyee boo ñu rëgal te xam ne lii du jàll waa daaf si Sud ñooy ni xam le ni numéro d'identité bu CEDEAO bi de xel xalaatul nag ñu koy def en ligne waa front de résistance nee nañ loolee la ñuy lii rek mooy maanaam dañuy wan fichier électoral bi rek waaye laa ñu rek delloo ci mbuum sa mbooy mbooy ñaxtu ndax maa jaalu ñu benn yoon dañuy màcc rek jëli li ñu moom doy sëkk nag ngir ñu jàppaaw dat vox populi nee na ñu jàpp yoon nag ministère de l'intérieur la ñuy wutali assiégé ndax kat ñii li ñu bëgg dafa yomb la yomb kay moo ngi ci l'enquête yéenekaay bi nee na député Cheikh Bara Dolly ñoñom di ay député yu opposition bi de maire ba futu la def nag dànxaafu nañ ndax la ñuy ñaawlu moo di rek doxalin Moustapha Niass njiital pencum ndayu ko neex lay doxale ma doon njiit ba noppi dëkkee jalgati kon loi yi nga xam ne moom de ñu ngaa daas fanaanal ngir nag dafanteex Moustapha Niass les échos ni nanu ko yoree mi ngi mel ni teggum natt ndax kat Moustapha Niass képp nag moo ci am droit loolee la député ku jëkk politique yu assemblée nationale bëgg mu dàkk ñii mel ni ku ko tayu Niass daal moo yaataa yumbe axambeeraay ci budget assemblée nationale loolee la ku jëgi ne basta na dàkk Moustapha Niass mel ni kuy musulu si ñoom ci le quotidien yéen i kaay la wone mu ngay kàbbarde mel ni gi rajiim ñas nee na amu jotu ko yitteel te li ko ñor mu Ba mi ngi mel ni koy taggal ay maamam da nee na ka naam baax bàyyi sa xel mi ngay foye ndax yaa gën a xam ne yaay ministre des finances bi gën a tële ci Afrique benn tubaab Diop ne ka ñaar dafa mel ni kon ñun ñaari Amadou Ba la am benn bi nga xam ne rek dafa jàppee nu nguur gi di ko muuc di ko dundee ah bi nga xam ne nee na nish, yaay day yëkkati bàkk ni mu ngay doxal réew mi ñaari Amadou Ba bi ane ban lañ si moom tubaab Diop ba tey ci direct info nee na ka Amadou naam ba cuut day xam ñamam naam nag am say bëgg-bëgg ci wàllu politique lu am yoon la waaye nag xamal ni bëddu yéen waaye xam li boppantan cuut kat day xam ñamam lii la tubaab Diop wax Amadou Ba ci direct info ma dikk ci Dakar Times ma dikk ci Fara Wade Ndiak Daara Wade Ndiak Karim Meïssa Wade moomee da jàpp leen ni coowam ak nguur gi ñaw mu nga wéy di xam bi na bi nekkoon nguur gi dafa mel ku dugal boppam ndax Mimi mii di ak Boun Abdallah Dionne ba nga xam saa su ne ñu ngay dànxaafu Karim Wade nañu rek bu fi wàccee te koppar ba ndungu siin lay teeri jee waa dama ne ñii xanaa dañoo yëgul bataaxal ba nga xam ne fukki fan benn ci weerub caatum jërum ñu dénk wàllum yoon moom Ismaïla Madior Fall daf koo xaatimoon jébbal ko comité des droits de l'homme di ko ca dalal xelam di ko ci xamal ni Karim Meïssa Wade de de corps jaaxal wala ak tayeef la yéenekaay bi nee ñii kat ñi ngi seen bopp kàmb kañu gasal kàmb kay moo di président Macky jëlal exclusif Omar Faye njiital leeral askan wi mu nga cay daan xaafre nee na président Macky mii de bi yeboo mu xam ne ka koy gasal kàmb du kenn ku dul Aliou moom rakk ja ndax neexul ba neex Aliou Sall mii kat dis na gan nekk ci réew mi lu duuf ci nag li rek mu daal di cëru Omar Faye leeral askan wi nii lii rek de mën naa tax bokk ci candidat yi sampoon seen ak bi jàppale ne jiitu na sa kaso ba de moom di ci enquête ba nga xam ne dañu ko sumb ngir agence manko ba nekk ca Pikine dañu dajji woon ko enquête boobu daf koo laal de yéenekaay bi nee nag candidat boobee de bokk na sa nga xam ne ni ñi démb rek lañu leen jël placé su mandat de dépôt kon caabi féete na ko gannaaw laaj bi samp kay moo di bi lépp ndax caution bi si boppam moo manqué woon am rek dafa bëgg def ni yenn ci ay candidat jumya bi leen